nee na képp koo xam ne moom daa weddi ci lislaam loo xam ne daa leer nañ ñëpp xam ne ci la mel ne weddi warub julli wala warub asaka wala warub ramadaan ak yu demee noonu dañuy jàpp ne kon moom daa weddi bu fekkee nekkoon na ci lislaam itam murtat na dañ koy wax bu tuub gëm delluwaat ci lislaam su ko nag wut matee ñetti fan rek ñu rey ko amal lëtt yi ndaal la nga xam ne nag lam toox la man xamee fu ko darooratan muy lu fees péng fa mënintamaa ko askanu li nukkurihaa jëm ci ak weddeem falay sa bil kaafiri du ab yéefar ba li fi nekk yoxal la mu def na ko xamal daa xamul rek kon yoxal la mu def na ko xamal haza lii allazi mooy la nga xam ne naqalahoo toxal na ko man gaañ a nga xam ne xalimoo xam nañu nee na ku wedd ci lislaam loo xam tax koo fese noona daa xaw a làqu ñu bari xamuñu ko te mën nañ ko bañ a xam ku wedd lu mel noonu dañuy jàpp ne nga xamul rek ñu xamal la waaye du tax nag ñu jàppe la ab yéefar yenn téer yi dañ koy misaale atte bi ñu atte ci miraas ne sët bu jigéen bu fi nekkee doom bu jigéen digg doom bu jigéen digg ba day am genn wàll moom mu am sudus ab juróom-benneel loolu daa xaw a làqu lu mel noonu nag ku wedd ku ko weddi woon loolu amut bëgg ko weddi dañuy jàpp ne nga xamul rek ñu xamal la waaye du tax nag ñu jàpp ne bu yéefar wala ñu lay jàppe ko morta déedéet waaye te loolu misaal rek la ci faslun li ab dog la lil imaani ci gëm bi rusuli ci yonante ya alayhim yàlla na doollee nekk ci ñoom assalaat dolli teral wasalaamu ak dolli woolu kon day bëgg a dugg ci wax ni ñuy gëme yonante yi imaanukum seenu gëm bi rusli ci yonante ya tasdiqun moo di ak dëggal bihim ci ñoom suma bi ma topp ca la nga xam ne jaa oo dikke nañu bihi ca loolee min rabbihim tukkee ca seen boroom ni ñu gëm yonante yi mooy da ngay gëm ne ay ndaw la ñu yàlla yónni lañu andi itam wax ne yàllaa leen ko yónni nga gëm ni wax ne dëgg kët loolee la leen yàlla yónni kon da ngay gëm ndaw li gëm la ndaw la wax ne mooy lañ ko yónni wa annahum ak naka ñoom yajibu dana war fii xàqihi moo ci seen àq sidxun dëggal amaanatun ak kóolute wa tabliquhu moo ak seenu jottali ba tey nag nga jàpp ne képp ku yàlla yónni rek am na yetti melo yoo xam ne mënta ñàkk ci moom benn ba mooy dëggal mooy dëgg rek lay wax du wax mukk lu amut ñaareel ba mooy sàmm kóolute gi ko yàlla wóolu ba du def mukk lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sipp ñetteel ba mooy jottali lépp li ko yàlla jottali loo du ci yokk dara du ci wàññi dara wa in tuxil ndem na nga jombal fi xaqihim seen àq xiyaanatan wor kisban ak fen wa kitmaan ak nëbbu tanal kon nga am amaanatan kóolute ba tey nee na yetti melo yee nga waxoon léegi seeni safaan mooy jomb ci ku yàlla yónni ku yàlla yónni ku ne fen wax lu amut jomb ne ci moom wor yàlla maanaam def lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib ba tey jomb ne ci moom nëbb itam dara bañ koo jottali ci liñ ko jottali loo ba tey jomb ne ci ku yàlla yónni ku ne bu firi la nag baat yooyu a sidduxu sidduxu xibaarun moo di xibaar bi maa ci la nga xam ne xad taabaqa dëppoonti naag xaqiqatal muxbari dëgg-dëggi lañu xabaar ax ni danaa jublu waafaqa dëppante nag moom dëggal moom mooy nee na wax la am dëgg-dëgg bu fekkee la nga wax dëppoo naag la am dëgg-dëgg rek loola mooy asiduxu amal amaanatu daal kóolute faxisul jawaarixi mooy wattu cër ya jamiixan boole seen mutulaxan ci lu man di doon xam man jële ci ka nga xam ne xàqaqa dëggal na lil wuqooxi ci tàbbi ga fi la si ci dara loo xam ne xadd xarama araamal na ko aw fi la si wala ci loo xam ne karixawo sib na ko rabbu samay borom asamaan nee na dëgg-dëggi amaana mooy ku yàlla yónni ku ne day sàmm mboolem ay cëram ba du ci laal dara dara loo xam ne lu yàlla araamal la mbaa lu yàlla sib la tabliquhum seenug jottali wafaauhum mooy seenug matal maa la nga xam ne umira digleef na bi ay yubballi xooxu ci jottali ko xàqan mbir muy dëgg lu war a jëm ci mbindeef yi tablix moom nee na mooy lépp leen yàlla wax ñu jotli ko rek ñu jotli ko bu mat sëkk bañ caa wàññi dara bañ caa yokk dara al kisbu kisbu nag xibaarun moo di ak xibaar bi maa ci loo xam ne xadd xaalafa wóotante naag xaqiqatal amri dëgg-dëgg mbir ma walam yu saadi faa te fiironte wut ak moom fen mooy safaan dëggal xam nga dëggal moo doon wax la am dëgg-dëgg fen nag mooy wax lu bokkut ak la am saa yu waxee lu bokkut ak la am dëgg-dëgg rek loola fen la amoo xiyaanatu daal war nag fa fi'lun moo di jëf xat jaraa joj daw na muharraman mbir mu luñu araamal aw yuraaw la dee fi ko gis za karahat mi borom sip xiyaana moom nee na mooy jëf loo xam ne nii ku ko xool muy lu araam mbaa muy lu ñu sip lu mel noonu nag ku yàlla yoon du ko def mukk xada mu tablixi la si ñàkk jot la nga xam ne xat umira digleef na bi ay yu balli xooxu ci jot li ko loolu day jaraa daw na kit maanaam mbir mu di ak na bu ñàkk jot li lañ leen jotali loo waaw kay loolu mooy kit maan kit maan mooy ñàkk jot li lañ leen jotali loo benn dañ ko nëbb benn yoon mbaa am lañ ca am lañ ca bàyyi loolu lépp ak nëbb la wa jaw wiisoo nag yéen daganal nag maa lépp loo xam ne laay waddi du àggale min xarab din ci xarab bi lin xay bi jëm ci ayub fi xàq yimoo ci àqi mboolem yonante yi mis la maradin kem tawat in lam yakun dem nekkut mu nafiran di aji fañ loo nit ñi mooy di aji dawloo nit ñi wakka nikaahin ak lu mel ne ki takk soxna wal bay ak jaay wa shira ak jënd wa shira yi ak jënd suñ ko daganalee day yatikum kon dikkal leen falaaxun texe daa wax ni nag li nga xam ne moom mën naa dal ku yàlla yónni mooy rek lépp loo gis muy gaar ni ci kese yi ci xarab xarab mooy loo xam ne tax ci jëmm te mënta beru mel ni xiif ak mar ak sonn ak noppalu ak nelaw ak yeewu ak bég ak jàq yu mel noonu nga xam ne moom day dal doomi aadama yépp rek mën naa dal ku yàlla yónni maanaam ku yàlla yónni lii gaar doomi aadama yi bu ko dee gaar mooy tax doomi aadama yi xam ne kii nit la ne ñoom ci googu wàll ba mën nañoo roy ci moom def la muy def loolu moo tax nag lu mel tawat sax dana leen dal ni muy dalee nit kese yi lu may nag muy tawat ji tax ñu lay daw tawat ji tax ñu lay daw moom yàlla du ko teg mu kum yónni mel ne ngaan ak siti nga xam ku ñu wooteloo ngay woote moom buñ la tegee lu tax ñu daw la kon du baax yàlla du leen teg tawat ji waral ñu leen daw mel ne ngaana wala siti wala tawat ji wàññi daraja mel ne yoom lu mel nag yéen ñuy def tamit dagan mel ne takk soxna ak jaayal jënd moom da leen di yokk sax daraja ak ngërëm fa yàlla ndax xam nga ca nañuy jaayee ko jëndi ak nañuy takki soxna ca la ñuy xamale doomi aadama yi ne noonu lañu war a defee te ku wane aw yoon rek daal di am tuyaaba ca wane nga nga wane yoon wa wal machi ak dox ga li suuxi jëm ca marché ba wa ak lin ak lekk wa sharaabin ak naan ba tax mu ne li ànd koo ngir naka moom yes yi duxum dana leen dolli xayra sawaa bi ngën ji tuyaaba dem ca marché ba ak lekk ak naan ak mboolem jëf yu dagan yi moom def lañ koy def da leen di yokk tuyaaba rek ndax ca la ñuy xamlee na doomi aadama yi war a defee te ku xamle aw yoon ñu bind la tuyaaba ca xamle nga nga xamle aw yoon am mat dalilu daal tegtal ba xalaa sidq yi mooy seenu dëggal fa moo ajji saatun ay kiimtaan lay doon an sala yooyu wàcce na leen al jalil aji màgg ji makaana xawli yi ci wérëb boo xam ja moom yàlla taxalaa kawe na ne xadd sadaqa dëggal na xabdiya samab jaam zabi fi kulima ci lépp loo xam ne axbara xibaar na ko xàqal mbir mu muy dëgg li nga xamee ne nag yonante wax nañ dëgg yàlla leen yónni mooy kiimtaan yam leen di may ba tax ñu gëm leen kiimtaan yooyu mooy wecci suñu borom ne woon kooku kat maa ko yónni lu mu wax maa ko waxloo lu mu jëf maa ko jëfloo tax bu fekkoon yónniwu leen kon du leen may kiimtaan yooyu tax ñu gëm leen te leen di gàccaayal ñu wedd leen toroxal leen waxiya moom mu gisaat nag amru mbir la xaari xul lu aji xotti baax yu xaarinu moom day lëkkaloonteeg daawaa risaalati lazi wooteeg yonante ka nga xam ne yohaa yenu def na jàkkaarloog moom yena mu gisa mooy mbir mu xotti baax moo xam ne ka ko def day wooteeg yonante ñu ne ko defal nangam boo ko defee ñu gëm la mu daal di koy def nag tamuy loo xam ne moom rek ko man ñi des mënuñu ko loolu mooy moo gisa maxa taxat jihi ànd aku bàkkoom bi ci moom min qabli añ yekkoona ci njëkk muy nekk waa xeen di aji xew laata muy am rek la koy bàkkoo ni waaw nangam su ma ko defee ndax da ngeen gëm ne yàlla ma yónni ñu ne ko waaw ko defee nag yàlla may ko mu def ko nag wa yu'ajjizu te muy lottal zamanan ci jamono kulla muharidin jépp aji gaaralante maanaam jépp aji rawante an itiyaani walis dikke ga bi mislihi ci am kemam nasran bi mu muy ndimbal mina dayyaani lu bàyyikoo ci fayaakon ba fayaakon ba mooy fayekat ba te mooy yàlla ki nga xam ne loo def mu fay la ko waaw nee na loolee day doon loo xam ne ña ca des kenn du ko ca man ndax bu kenn manee du nekkati mu gisa day aajow muy loo xam ne menn moom rek moo koy man yàllaa ko defal muy ndimbal di ngañaay moom ko yàlla yónni bu ko defee moom rek mu man ko keneen du ko man nag muy moo gisa ba tax mu ne ma ànd taxaddi maanaam at taxaddi ñu koy firee bàkku wala bëre xawlu man mooy waxi ka nga xam ne xat ursi la yónneef na ko ne aayatu siddixiya màndargam sama dëggal day kaza mooy nangam faxasalate mu amee noone maanaam taxat di nee na mooy ñooñee ñu yebal yonante ba ca ñoom ñu wax ko ne ko nangam day boo ko defee nu gëm la mbaa yonante ba ci boppam ne leen nangam de xanaa su ma ko defee ngeen gëm ne yàlla ma yónni loolee nag day doon loo xam ne ñoom jàpp nañ ne mënta nekk ñoom nit ñooñee su ko defee nag yàllaay may yonante boobee kiimtaan googee daal di feeñ su ko defee nag ñenn ña jaare ci gëm ci coobare yàlla ñenn ña doxe ca di weddee kanaa njabar laag nangam ak nangam lépp ci coobare yàlla misluñ si xaaxul xamari mel ne xaru weer wa almaaruuxi wari muñ xam ak kalaami babbi ak nit ki waxi mbëttam almaaluuxi mari muñ miin yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa bari ay kiimtaan sëñ bi misaale ci yaar benn ba mooy xarugu weer wa xarugu weer wi alquran junju na ko ci iqtarabati saatu wan shaqal qamar dañoo laajo yonent bi ne ko na weer wi xar ñu xam ne yàlla la yónni yàlla xaral yonante bi weer yi mu def yaari gaal ñuy jàkkaarloog yaari gaal ya waaye teewul rek ñu ne ak njabar la bi ci des mooy bëtt moomee nga xam ne benn sàmm arab moo ko jàppoon andi ko ba ci yonante bi ne ko mbëtt mii su la gëmut duma la gëm yonante bi ne mbëtt koy jaamu mu ne ko buurub asamaan sii mu ne ko mbët man maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamin yow day ndaw nga lu borom mbindeef yi yebal sàmm arab boobee dal di tuub dugg ci lislaam amal amaanat ndaal amaana foxul waxal ne law xaanoo doonte waroon nañu salla yàlla na dolli tedd nga arrahman aji yërëme ji xalaa kullihim ci képp ci ñoom bi fi alima ci def loo xam ne kuriha sibeef na ko aw maa wala loo xam ne xaruma araam na la saara kon mujj taaxatanti ak topp lahum ñeel leen taxattu man ci war li andohum yëg na ko yàlla jàlla màgg na amara digli na bi iqtidaay ci roy bi him ci ñoom fil aqwaali ci wax ya ma afaalihim ànd ak seeni jëf ne bu ñu ne ab yonante kat du jàdd mukk yoon def lu araam mbaa lu ñu sib la waral loola mooy ndegam yàlla leen yónni wax ne ñii ñooy samay ndaw roy leen ci ñoom bu leen seetaanee kon bañ def lu araam mbaa lu ñu sib faaw loola ñu war leen caa roy te kon day mel ne yàlla ci boppam moo araamal mbaa mu sib ba noppi ne wëlbatiku ne def leen lii ma araamal mbaa def leen lii ma sib loolu moo tax ab yoonante moom ci aw yoon rek lay aw kayfa naka lool di mën a amee waxat daxa ramate araamal na kit maanan ak nëbbu rabbu samay borom asamaan kama laxan naka mu rëbboo man ka nga xam ne yaf xaluxoo dana ko def waxoote moom yàlla naxaa tere na alkulla képp bilastis naa ci lu settee xal hisiyaani walis mooy ga wal faxashaay ak ñaawteefoo ay dan ba tey waaw nee na yonante yi buñ leen seetaanoon bañ def luñ araamal mbaalu sib kon nëbb nañu ndax kon leerul ni yàlla araamal na lii mbaasib na lii te bañ ko defee faaw ñu topp leen ca mel ne kon yàlla moo aaye ba noppi wëlbatiku ne topp leen li ma aaye kon yàlla du bàyyi ab yonante mukk muy nëbbu lam ko jottali loo ba tey du bàyyi ab yonante mukk muy moy mukk ndax su moyee rek mooy googee mooy day soppiku yoon te mel ne kon moo ko digle loolu nag kon mënta am bi xay ni burhaanil amaanati ci jëmmi layu amaana ba daala feeñe burhaanu tabliix layu tabliix li ma ñeel ki nga xam ne xat na xat gëstu na xam-xam nee na bi ñu leeralee ne ku yàlla yónni faaw mu sàmm kóolute ga ba du def lu yàlla araamal du def lu yàlla sib kon kat far nañ leeralaale ne ku yàlla yónni du nëbb mukk mukk la ko yàlla jottili loo ndax xam nga ne bu nëbbee rek def lu araam te nee nga ku yàlla yónni du def du wax lu araam ba lu ñu sib te bu nëbboon daldi def lu araam rawante na rawante na nag bu ko su borom ne jotlil ne nangam daa araam mu bañ koo jotli mbaa jotli ne nangam dañ koo sib mu bañ koo jotli mbaa nee leen nangam daa war mu ne bu ko bañ koo jotli yooyu yépp kon ba nga leeralee ne sàmm kóolute mënta ñàkk rek xamal ne kon nee nga it nëbbu mënta am mukk mukk ci ab yonante ku yàlla yónni faaw rek day jottali ba mu mat sëkk sëkk du ëpp du yees amaa jawaasu xaradin daal daganu xarad alayhim ci ñoom alayhim yàlla nekk ci ñoom asalaat dooli daral min rabbihim tukkee ci seen boroom fa bi shahadati wuqoox yi nekk na ci seere ak dalam bihim ci ñoom nee na nag li ñu waxoon ne di dal nit ci kese yi ñu ki xiif ak mar ak sonn ak nelaw ak jaay ak jënd yëpp li ñu ne mën naa dal ab yonante ni mu dal nit kese loolu moom nee na ña bokk na ñoom jamono dañ caa tegoon seen bët muy lu wér a wér nga xam ne moom li ñu teg bët la ñu di ko nekk li ñu koy dégg di koy dégg ba ci nun rek moom waxoo moom nag tasallin ak miise la ci ñoom warti faawu xaalihim ak yëkkati ko seen mbir nee na boo seetloo nag ni yàlla def yonante yi ñu daa yëg ni nit ñi yëgee di mettirlu ni nit ñi mettirloo di sonn ni nit ñi sonne ci àdduna ji nu nekk loola kon day tax yow mi nga xam ni tu kese nga sam xel dalee ca nga xam ni àdduna yàllaa ko bind rek muy kërug coono ak tiis far sax àdduna yonante yi ñoo ci ëpple ay tiis ak kinattu gannaaw ba wàllu yi ku ci gën a baax it noona ëpple ay tiis ak kinattu bu ko defee kon nag yow mi nitu kese boo gisee loola nga da nga ci mën a miise xam ne àdduna noonu la ko yàlla doxale def ga yonante yu baax yi daan def nag yu dagan yi di ki jaay ak jënd ak takk soxnaak yi demee noonu moom day gën a dolli seen daraja gën a dolli seen tuyaaba ndax ca nañuy jaayee ka jëndee ka doxale ci kaw suuf ca la ñuy wanewaale nit ñi ne nii ngeen war a doxe ni ngeen war a soppandikoo su boobaa nag wane ga ñu wane yoon wa yàlla da ci yëkkati seen daraja yokk ci seen tuyaaba ndax koo gindi teg ko ci yoon rek yàlla fay leen tuyaaba yi gindi gën ko gindi ba teg ko ci yoon wa wa adadu rusul li mu yonante yi jiimu ñett la qabla yaayam ci njëkk fukk wax da wax dahuma nekk na seen gannaaw ñoom ñaar muhmalu siinin lu ñu neen la siin ruwiya boobu ñett leef na ko li mu yonante yi moom nee na boo koy bind ci araf abajada ngay bind jaysun muy jiim ak yaa ak siin soow ko defee siin soow nekk ñett téeméer yaa nekk fukk jiim nekk ñett muy ñett téeméer fukk ñett wala muy li mu yonante yi ba tax mu ne bu xëy duhoo tënkam ba jaysun mooy jays waxee la waxees na ne daysun mooy days bi daali ci daal ga muhmalan mbir mi lu ñu neenal waxee la waxees na ne xaysun ba tey xaysu li bu biyonoon tey la wax ne daa am wuute am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñett te loolu moo gën a siiw am ñu wax ñetti téeméer ak fukk ñeent mooy days ndax daal mooy ñeent am ñu wax ñetti téeméer rek fukk ak juróom te mooy hays waaye mën ngaa jàpp rek lim bi njëkk a tudd mooy jays ñetti téeméer fukk ak ñett ama jamihul ambiya yi ndaal mboolem ñañu solo wa rusuli ak yonante yi faqakadun téeméer lañ ak ñaar fukk ak ñeent nan uloo fi ci ay junni yaara julan yow waay soo boolee nag ñi yàlla wax yi woon te digalu leen jottali ñooñu ñoo tudd ñu ñu soloo soo leen boolee yonante yi nga tudd léegi lim ba day bari daal di mat cent vingt quatre mille téeméer ak ñaar fukk ñeent ci ay junni nga xam ne kon ñi yàlla xamal aw yoon te digal leen ñu woote ca bariwuñ mooy trois cent treize yi ñi yàlla xamal aw yoon nag te néewu leen ngeen jot li ñoom ñoo bari lool ndax boo weesoo trois cent treize yi la des ca cent vingt quatre mille yépp ñu ñu solo rek la ñu muy al ambiya imaanukum seenu gëm bihim ci yonante yi ataa dikk na mu tafsila mbir mu dik teqale fantabihoo na ngeen yewu fii ci moom tenaaloo kon ngeen am assuula pajug aajo ba tey nee na gëm yonante yi am na teqale am na ci ñoo xam ne dangaa war a ràññeel seeni tur jàpp ne ay tur yonante lañ yàlla yónni woon maanaam boo weesoo ñooñu nag boo jàppee ne am na ñeneen ñu yàlla yónni woon ñu bokkut ak ñoom rek mu daal doy du aajo ña ci des moom ngay jéem a xam seeni tur mbaa dara fa may yisoo nag yéen ràññeel allasiina ña nga xam ne fil quraan yi nekk nañ ci alquran waxaat bu xum te seenub lim kahun ñaar fukk laa juróom bi laa nuqsaan ci lu wàññi nee na ñi nga xam ñoom la seen tur ñëw ci alquran ñooñu nga war ci ràññeel ñooñu nag ñaar fukk juróom lañu muhammadul muhammad aadamu ak aadam noohun ak nooh xoodun ak xood idris ak idris lootun ak loot saalihun ak saalih daawud ak daawud way woowu am na juróom-ñett ndax muhammad aadam nooh xood ñeent la idris loot saalih daawud mu juróom-ñett wa yusufun ak yusuf wa yunusun ak yunus ayub ak ayub haaroon ak haaroon yaxya ak yaxya wakkasaani ki ni yanqoob yanqoob way woowu juróom-benn ngi ci ndax xabu njëkk bi am na yusuf yunus ayub xabu ñaareel bi am na haaroon yaxya yanqoob ilyas ak ilyas wal yasam ak al yasa ibrahim ak ibrahim isxaq ak isxaq ismail ak ismail wal kalim ak kañ waxal mi Musa pati way bi am na juróom benni tur Ilyas Alyasa Ibrahim ci xabu jëkk wi Ishaq Ismahil al kalim te mooy Musa ci xabu ñaareel wi wa Zakariya ak Zakariya Suleymaan ak Suleymaan kazaliki ni Dulkifli Dulkifli Xiisa ak Xiisa wa Shuhaybun ak Shuhaybu uxisa jàppeef na ko man nga ne wa Shuhaybun Shuhaybu uxisa jàppeef na ko way wi am na juróom ndax xabu njëkk wi ñaari tur ngi ci muy Zakaria ak Suleymaan xabu ñaareel bi nag am na ñetti tur muy Dulkifli ak Xiisa ak Shuaybu boo leen boolee ñu ñaar ko juróom nag ñoom nga war a gëm ci ràññeel xalaa nabiyina yàlla nekk sunu yonante al muqaddami kadi kuñ jiital al humaami kadi ab sang suma xalihim topp yàlla nekk ci ñoom ñëpp assalaat dolli teral wasalaam ak dolli woolu dafa ñaan yàlla dolli teraanga yonante bi ak ñi ak mbokk yonante bi yëpp yëpp rek yàlla dolli leen salaatu ak salaam faslun li ab dog la fil imaani ca gëm nga bil yow mi ca bis ba al axiri bay aji mujj kafaanaa yàlla nanu fegal allahu yàlla taala kawe na ahwaalahoo tiitam ya day wax ci dog bi niñ war a gëme bis penc mu ñaan yàlla fegal nu tiit yo nga xam ne moo cay xew imaanukum seenu gëm yaa ayuha shubaanu yéen waxambaane yi bi daalikal yow mi ca boobee bis huwa moom al iqaanu moo di wóolu ga bi annahoo ci naka moom xaqun dëgg la wa annama ak naka la nga xam ne ishtamala làmboo na xale yi ci moom xaqun dëgg la min suróorin ci mbégte wa wajalin ak njàqare ñi ñi gëmee bis penc day nee na mooy wóolu ne bis bi ci boppam luy ñëw lay doon mënta ñàkk te it lépp loo xam ne alquran mbaa yonante bi wax na ko ci addis ne dana ci xew rek nga gëm ne moom it dana ca xew lu am lay doon muy lu neex muy lu naqari muy mbégti muy njàqare kan nashri ni ki wesaaroo ga wesaaroo gi mooy bu kenn ku ne génnee ci bàmmeelam ca bañ leen dekkalee su boobaa dañuy dekki tasaaroo loolu moo tudd an nashru wal xashri ak pang ga pang gi mooy dañ leen di jiital di leen jëmale fañ war a daje ngir ñu àtte leen fa wakal misaani ak lu mel ni balaas ba balaas boobu alquran wax na ko ba tàyyi muy balaas bi ñuy peesee jëfi jaam ñi wa nadaau almawasina alqista li yowmi alqiyamati fala tudlamu nafsun shay'a balaas la bu xereñ boo xam ne sax du tol ne fepp bàkket li muy tuuti tuuti du ko wacc xam ne ku jëfam ju baax wat lum tuut tuut mu daal di mucc ku jëfi safaanam wat nag te yàlla dabaatalu ko ci yërmandeem mu daal di texee di wal xaw bi ak déegu yonante ba déegu yonante bi itam sax na bu wér a wér muy xéewalu teraanga gu ñuy naan goo xam ne yàllaa ko jagleel yonante bi nga xam ne ku ci xas naan doo marati mukk-mukk wal jànnati ak àjjana wal niiraani ak sawara ya bokk na ci mbiri bis penc kërug teraanga nga tudd àjjana ak kërug tiis nga tudd sawara yépp des ko war a gëm wakas siraati ak niki siraat siraat aw yoon lay firi waaye nee nañu ku jëm ci kërug texe ga ak ci kërug safaan ba ñoo ci yemoo daa am lu ñu wooye siraat loo xam ne ci la ñu war a aw nag te kenn ku nekk di ci awee kem ni sa gëm-gëm toll woon ak sa jëf yu baax am ñu cay gaaw lool lool ba mel ne melxat gu melxati am ñu cay yeex lool lool sax ba am ñu sax ñu daanu ca sawara wa nga xam duñ jote jàll ndax siraat dañ koy gàll ci kaw sawara bu ko defee nag am na ñoo xam ne nee nañu duñ jote jàll dañu daanu ca sawara wa mu far doon seen kër wala mu róori ak romb ga da ngay gëm siraat ci boppam gëm ne des na ca romb wal xisaab ak xisaab ja xisaab ji itam sunu boroom kenn kum sàkk ku ne na la taxawal daal lay xisaab wax la la nga defal lépp bu ko defee nag bu la dee jéggal jéggal la bu la dee topp topp la waaye faaw rek kenn ku nekk da nga wéet ak moom mu xisaab la ba mel ne yow rek la ma sa sàkk wa ka shafaxati nabi ak niki ràmmum yonante ba wal xiqaabi ak mbugal ga ramm mooy tinu am na ramm mag a mag moo xam ne yonent bi ci boppam lañu ko jagleel te mooy ña nekk ca pénc ma bu ñu taxawee taxawaay bu yàgg yàgg yàgg ba nga xamee ne day mujj ñu jiital leen yóbbu sawara sax moo leen gënal nag léegi wéy di taxawati di wéy rek xamuñu fu mu jëm moom daal li ñu bëgg rek mooy ku leen àtte mbir mi jeex waaye taxaw daal moom bëggatuñ ca dara dara yooyu jamono yonent bi ci bopp nag mooy ñaan boroomam yàlla ñëw àtte leen ndax kenn ku ne jëm fa ngay jëm ñu noppaloo ñu noppalu ci taxawaay ba daal ràmm bu bokkut ak moomu nag moom yonent bi dana ko def yonente ci des dañ koy def ñeneen ñu baax ñi tam ci ñi ci yàlla jagleel ràmm it dañ koy def ba tey bokk na ci mbiri bis penc bugal gu metti googee xeeti bugal yoo xam ne yu doy waar la di xeeti xéewal yi yéemoo rek noonu la xeeti bugal yi itam di yéemoo nga xam ne yu xaasa bu def na xisaab almar u jamsa alal xitmiir ci xitmiir maxal fàttali ànd ak fàttali waxal naqiir ak ci naqiir as cam mooy nit rek nit ku ne bu ñuy seen mbiram daal duñ ca xeeb dara dara lu toll ne xitmiir mbaa fàttali mbaa naqiir sax deesu ko xeeb. yett yi li ci ne mi ngi ci doomu tàndarma naqiir même mujj wax mooy kemb ba ci boppam boo xoolee kaw kemb ba day am as xóot-xóot. xóot-xóot soosee moo tudd naqiir fatir moom mooy lay nekk ca xar-xar ba tey nuru as wëñ nuru as karan as wëñ xiti mbir nag moom xittu mbir nag moom moo ci gën a fés ndax mooy deru weex wi nga xam ne léeg-léeg mu ànd ak saal bi léeg-léeg mu ànd ak ñam wax bis ci daal bi ñuy seet mbiri nit lu dara tuuti tuuti tuuti deesu ci xeeb dara dara dara muy lu baax muy safaan ba wa yaqaxu dana tàbbi al xisaasu fayantoo bayna jamma diggante aw njëkk aw njëkk mooy ku yàlla bind te amul béjjën te fekk ay moromam di am béjjën mel ne xar wala bëy wala nag wa bayna xarnaa ak diggante aji am béjjën li àddulin ngir maandu sàmm foofee nee nañu yàlla sàkkan sax te amuñu woon i béjjën seen morom yi am béjjën daal leen daan su ëllëgee yàlla day teewal ñoom ñëpp yi am béjjën ak yi amutoon i béjjën bu ko defee nag ñi amani béjjën mu dindi seen i béjjën ñi amutoon i béjjën mu saxalal leen béjjën ñu fayu ci ña leen daan daan ci àdduna loolu nag bu ko suñu borom defee ci diggante bahima yi nga xam ne amuñu woon xel bay mën a moytu dara daawante ne kon diggante doomi aadama ak jinne yi nga xam ne ñoom amoon nañ sago amoon xel xam lañu war a jàpp ak lañu war a bàyyi wa kullu ma lépp loo xam ne ajraahu dawal na ko shaxsun jëmm min amalin ci jëf fa sa yaraa xalsat naa gis jasaahu payam ba yow mal wajale ci bisub njàqare ba nee na lépp lu waaye defoon rek keroog da nga ko gis ñu fay la ko nga jàkkaarloog moom muy lu baax muy safaan ba